Est-ce dû justement à ce, ce manque de notification-là notification. <laughs> Hmm, hmm. J'en parlais hier, hmm. notification de la décision de le réintégrer sur la liste électorale. Non, c'est juste une stratégie politique. Déjà que coïncidence pour coïncidence, et même euh, d'après un poste qu'on lui prête, euh, il soutient euh, des, des sœurs, je ne sais pas quoi, que, comment on appelle ça, nous, c'est des femmes qui ont été incarcérées justement comme lui. Et, et, tu vois que lui, il démarre sa grève de la faim après qu'on nous ait annoncé qu'il y a des détenus, au moins 150 à Ziguinchor, qui sont en grève de la faim. Mmh, Est-ce que ñooñu dañu waa Pastef également. Hmm. Est-ce que du ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon ci événement yi mujjee am fi mois de juin. mais quoi qu'il en soit c'est également une stratégie politique une option boo xam ne moom jàpp na ne et c'est ce qu'a euh, évoqué son son avocat. Hmm. moom position bi mu nekk de détenu mënul def leneen lu muy grève de la <laughs> pour justement dénoncer ces conditions, dénoncer la violation selon lui de ses droits politiques, mhm. entre autres, euh, ak yeneen ak yeneen donc c'est dommage que grève de la faim ñëwaat parce que bële quand même on a eu des des sueurs froides mhm. par moment lorsqu'on entend telle ou telle autre personne faire des sorties à propos de de, de la première grève de de la faim j'espère que bi yoon du fa yàgg parce que 34 jours yële moom euh, mujjee woon na saf-saf. kon état bi ba tey dafa pouvoir en cassation par rapport à euh, décision du juge bi fële fay. dafa dugal recours.

qui a soufflé sa 95e bougie. 95e bougie. Bon, pourquoi Parce que nous avons un studio ici qui s'appelle Studio Aj ah, Mansour Donc nous, nous devons quand même de lui souhaiter joyeux anniversaire. Et il a soufflé sa 95e bougie. Nous qui nous ne sommes pas sûrs d'arriver à ça. Voilà, c'était tout. ans, ah, Inch'Allah, Mbaye Bassou. Ah, mm. donc ama jàmm ju bari yow moom ko am njariñ nga ci réew mi.